julli ñu waxtaan tuuti ci Seydina Ousmane karamallahu wajha wala boog ridwanullahi alayhi ma alayhi waaw ah, bismillah ñu déglu Oustaz Sidi Ahmed ngeen baal ma nag boo gisee ma leen di wax yi dama leen di wax ne man maa leen gën a dund àddina fuuf te maa ngi wattandiku lu ma mën te yeen ñii yooyu yëpp yeggagu leen ci am na foo xam ne boo fa yeggul déglul déglul ñu wax la ci sa nopp bii da ngay ji ñu la wax nit day kilifa boo toppee rek xale yii xale bu jigéen boo gis rek ne baax na xale bu jigéen boo gis a baax waaye kenn ku ne am na koo war a àndal kenn ku ne am na ko war a àndal ka nga war a àndal àndal ak moom amul problème man waxuma kenn kaay ma nekk sa kilifa waaye yéen ñëpp laa wax man ñëpp ku ci ne sama kilifa da ngay nangu li ma lay wax nga di ko def wala nga dem ma dem ci li muy neex. bugguma ñu dem ba àllaaxira di ko ñëwante iz tabarra alladina tubiu min alladina tabaau wa raaw alazaba wa taqattaat bihim al asbab loolu lay bañ mu dal kon nañ ko lijjanti fii mu leer nañ ñëpp buñ demee kenn bañ a tardel sa bopp ndax dem dina am moom buñ demee ba yegg ci yàlla nag kenn bañ a tardel sa morom al axillaau yawma idin baaduhum baadu aduwan illa alladina illa almutaqina foofu laa bëgg ñu bokk al axillaaw foofu laa bëgg ñu bokk waaye bëgguma ñu bokk fa de moo tax nañ ko liggéen ci fii rek mu leer ndax yenn yi tamit baaxul jaaduwul nañ yërëm jigéen ñi ngir yàlla nañ leen yërëm nañ leen yërëm nañ leen yërëm nañ leen yërëm parce que ku leen yërëmul doo nit sax doo nit koo xam ne amul ku dul yow téye ko te ku ku bàyyi ndeyam bàyyi baayam ñëw di fanaan sa biir kër te am kër ndey am kër bàyyi yërëm ko lillaay war suul yërëm ko te xam ne am na ndey ni nga ko amee am bàyyi ni ko amee bàyyi ndeyam bàyyi baayam ñëw bokkati ci sa ginnaaw yërëm ko yërëm ko yërëm ko soo ko yërëmee rek yàlla yërëm la waaw donte nag dana ñuy tooñ ñoom it waaye nag inna min amwalikum wa azwajikum aduwun lakum ah waaye wallahu indahu ajrun azim wallahu indahu ajrun azim moo dalal xel waaw yàlla ne innama amwalukum wa awladukum fitna fitna waaye wallahu indahu ajrun azim nee na lenn ci seen jabar yi lenn ci seen alal yi fitna la ci yéen ak seen i doom waaye su ngeen ko muñee mu ne tiyaaba bu rëy la fi man yàlla beneen bi mu ne inna inna min azwajikum wa awladikum aduwwun lakum waaye faxdaru mooy dëkkal ak jaam ci biir néeg te buum la mat loolu la yàlla wax lenn ci seen i jabar lenn ci seen i doom seen i noon lañ bu leen leen bàyyi woon na ngeen leen wattandiku waxul bàyyi de dafa ne na ngeen leen wattandiku faxdaruhu nañ wattandiku bu baax nag dañ wattandiku bu baax am yërmande ci ñoom tey dégg tey dégg bi nopp yi di dégg ubbi nopp yi di dégg nit bu déglootul rek amatul sol surtout jamono bii ñu nekk ku amul kilifa doo dem man maa la ko wax jamono bii ñu nekk ku amul kilifa doo dem ndax bu da séen luy leer xati nga yaakaar ne ndox la fekk zamaan ñun ñëpp ñu bokk waaw boo ko gisee goudron noonu nga séen muy leer xati noonu nga foog ne ndox la boo dawee ba yegg si mu continué waat noonu ngay nekkee ba dee ak mar surtout nag nga kon su ko defee addina du dara déglu rek te jigéen ñëpp a yem ba ngay bàyyi ba ngay yóotu moom bi bi nekk ci sa a yem rek waaw ah, yonent bi daal sallallahu alayhi wasallam nee soo génnee ci biti gis jigéen ju la jommal mu ne wëññeekul sa kër rek ba nga fa bàyyi nga gis ci mbedd bi dal na yàlla dolli sutura kon oustaz Sidi Ahmed kàddu gàllu bismillahi rahmani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi fi daje mbokk pas-pas mbokku diine mbokku xadara ñoo ngi leen di nuyu ci baat yu tedd yu sell yooyee tey ñaan tabaraka wa taala na ko yàlla sëmbërtal leer ci suñu kaw def ko bi barakati sayyidil wujud di jiital ci nuyoo bi comme ni ko alxaaji imam Lamine Saabu jiitalee ci sang bu tedd bi di sunu kilifa Chérif Ibrahima Haydara at yi lii mu tëjee waxtaanam léegi maa ngi doon déglu Serigne Cheikh keroog rek mu jamono toll na foo xamante ni ku amul kilifa doo dem ku nekkul ci njub doo dem ku ragal doo dem Serigne Cheikh mu koy répété keroog mu jamono fa toll. tabaarakallaahu te lii muy wax yépp suñu njariñ la lu ci génn suñu njariñ amul ndax moom am na kilifa ba moo ngi ci yoon te àgg na kon ñun ñiy door a jëp te kilifa te bëgg am kilifa mu yóbbuñu fa ñu jëm ki nga def sa kilifa dañ koy nangoo jox sa lépp tabaarakallaahu ay dara ñëw ngi lay ziar bu baax <clears throat> jox la sa wàccuwaay bi la yàlla jox ñaanal la yàlla yàlla na la fi yàlla yàggal lool sa ndax di gën a fees ndax suñuy tudd gën a rëy bi barakati sayyidil wujud keroog rek maa ngi jokkoo benn waaye yaakaar naa Mouhamed Mouhamed la tudd jawbe la dëkk xaw ma waaw waaw kañ mu may woo téléphone xaritu xalifa mii la daf ma woo téléphone ñuy waxtaan yi kooku bis boobu dama waroon a woo sang bi mu woo ko parce que xaw naa dee ci téléphone bi mu naan ma ay dara ay waay lii lii wax na la ko de mu na ma lii xaw ma nan la ko yàlla di defee sërif woo ma nii ay dara mënuma koo arrêté ma noppi rek parce que baat yee nuroo nee na mënuma koo arrêté ma noppi rek waa ji mayu ma ne mu naan ma ay waay lii lii lii bis boobu waroon naa la woo nga dimbali yàlla xam na ko wax na la ko wallaay ndeysaan maa ngi tiit ma ne ah maa ngi am dara ci sang bi alhamdulilahi rabbil alamin ndax ñu jaawale la sa kilifa dëkk dëgg ne eh, lu la yàlla defal la mayu yàlla la tabaarakallaahu te du dara de man mii maa ko tey dooj rek di ko toppandoo maa koy def ci téléphone bi léeg-léeg de <laughs> diisal baat bi lool <laughs> wàcce kàddu gi benn par benn <laughs> léeg-léeg maa lay toppandoo foofa de rek mu jaawale ñu ndeysaan allahu akbar keroog damaa yéemu ci yàlla ma kii de sëriñ war na koo woo tey ndax bu ma ko nee man la Sidi Mbaye <laughs> noppi rek <laughs> ba nam ca paree ma ne ko ah, man la oustaz Sidi de mu ne ba maa ngi lay siyaar <laughs> waaw maa ngi jaaxle bee waaye ñu war a waxtaane Seydina usmaan di tuddee nañ ko moom it amirul muminin ñu tuddee ko ni ndax làkk na ñaari njabootu Sayyidul Wujud te yonente bi leer la moo tax bi téere yi di werant ndax yonente bi am na takkandeer wala amul takkandeer Seex Sayyidul Xaaji Malik ne tabbat wa suqat lahum wal badru saafihuna asara xisaali xawa duuna bariyati lam yaxtalim abadan xulma lahu zulalul Maodo dàq ko waaw fukkam ya mu tudd fukki mbir ne ku dul yonante bi amuloo ko ci way woowu la ko Maodo tuddee bi mu njëkk dàq wa ma lahu zulalul nabi amul takkandeer ndax leer la leer du am takkandeer Seydi Hadji Malick dàq ko moo tax Zu Nuurayni ni ñu tuddee ko Seydina Ousmane parce que ñaari njabootu Seydina Mohamed ay leer lañu moo waral tur boobu Seydina Ousmane ibnu Affan saalisul xulafaa u rasidin moo ñetteeloo xulafaa u rasidin muy Aboubacar ak Omar moom mu tegu ca di ñetteel ba muy Ousmane ibnu Affan kañ la juddu wulida fii sannasi saadisa min miilaadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi dikk àdduna ba mu am juróom benni at la Seydina Ousmane juddu kon ndake yëfi lislaam nekkul ci mag xoolal Omar ibnu Xattaab xoolal Omar ibnu Xattaab moo mag Seydina Ousmane waaye xoolal euh, déedéet Seydina Ousmane moo mag Seydina Omar waaye xoolal Omar moo topp ci ginnaaw Seydou Aboubacar Saddiq looloo tax arab ba naan la taqiranna saqiran fi muxaaf fi muxaasamatin inna al baudata tudni muxlat al asadi waaw mu ne xaleel kenn du ko xeeb ndax gaynde ni mu toll ak ni mu jàmbaaree fu bëtam xonke yoo ko ca màtt waaw mbay doon way ko réew mi bàyyi leen di xeebi xaleel ab xaleel loxom bu setee mën a bokk ak mag ña loxom bu setee de la wax baat boobu moo jara seetlu ak xale loxom bu setee mën a bokk ak mag ña mu tegaat ci ni mag mu toog di xoole ba xal xaleel fab ngërëm la matatul muy xuloo waaw ku xëy ba doy mag ni mag ñi samp la ab xul du tax ñu simpi la waaw mbay doondee ko wayoon wa tabarakallahu saydina ousmane ibnu affan juddu ci at booba wa huwa min xiirati sahabati bokk na ci saxaaba yi nga xamante ni ñoom la ñu tànn ñuy ñeent topp ci ginnaaw sayidina muhammad moo tax jotaay bi yonente bi toogoon wax uhibbu min dunyakum salaasa asyaa'in Aboubacar wax ñettam Seydina Omar wax ñettam ñetteel ba Seydina Ousmane a ko wax te ñett yi wax mooy ifsaa'u salaam ifsaa'u salaam la ñëkk wax siiwal nuyo biñ ko laajee lan moo tax nga taamu siiwal baatu nuyo Seydina Ousmane nee na bu ñuy siiwal baatu asalaamu aleykum xuloo du bëri ci suñu biir ndax baat bi jàmm lay firi loolu la Sayyiduna Ousmane wax waaye dem ba romb sa mbokkum jullit nga naan ko jaafuwaay te asalaamu aleykum nekk fi loolu taayal kese la xale yu bëri li ñuy nuyoo léegi boobu sori na mooy bégee baat bu gàtt sénégalais yi dañoo taayal ba taayal ci nuyu waaw asalaamu aleykum pas asalaamaaleykum déedéet bëri na ñu koy nuyoo surtout mbokku jigéen ñi fekk sa moroomu jigéen toog salaamaaleykum moom it mu gën laa rakkaaju teg loxom ci ndiggam ne la maaleykum salaam xoolal yéen di waxante ni yéen ñaar ñëpp yàlla bu ci kenn am jàmm maa bi bi maanaa laa ci grammaire jàmm yàlla yàlla boo ko am ki ko wax mu na la yow yàlla boo ko am moo tax xuloo yi di bëri bi dammi miim assalaamu aleykum loolu la yàlla bëgg ci nuyoo Seydina Ousmane Ibnu Affan bi muy doon ndaw li sàng bi di wax léegi ñëw na istaxala yitte woo na am na yitte bi tijaarati ci def commerce moom Seydina Ousmane da fekk atam bëreegul waaye di dem diggante saam ak madinatu munawwara ak makkatal mukarrama di jënd ay marchandise di ko jaayaat moom Seydina Ousmane ibnu Affan wa kaana mutawaffiqan mu dëppoog nekk commerce bi mu doon def moom sa Seydina Ousmane du ci wàññi du ci yokk dafa dëppoog moom maanaam ni ko l'islam santaane ci commerce noonu la ko Ousmane daan defee waaye jënd benn potu sokola euh, def ci dëwlin ba mu doon ñaari pot nga di ko jaay kooku Seyiduna Ousmane daanu ko def ak doon jaaykatu jën jënd jën jaay ko ba mu des mu fanaan nga xëy tubb ci suufu géej si sotti ci kawam ñu laaj la jën bi kañ la génn ci géej gi nga ne moo ngi door a génn léegi te fekk suuf see door a génn léegi du jën bi loolu Sayyiduna Usmaan daanu ko def mu wax tawaffiqan def ci dëppoo woon sa at mu yaatal commerce bi mu doon def tijaaratuhu wa kasura maaluhu dem na ba am ci alal ju bëree bëree bëri comme ni ko sànga bi waxee kii jaay naanaa bi ba am ci loola wa kaana karimu nafsi Usmaan doon na koo xamante ne dafa teet doon ci bakkenam dafa teddoon ci bakkanam loolu nag eh, ñu bind ci sara bi li koy firi mooy Sayyiduna Ousmane daan na dugg ci néeg bëgg summeeku pour tëdd dana gëmb ba noppi fay lamp bi ndax bañ a gis ay cëri boppam waaw dana gëmb fay lamp bi door a summeeku saa sa ay yére door a dem tëdd ji bu dee dana ca yàgg ndax saxaaba yi jaamu yàlla liñ ci mënoon eh, wa min al-layli fatahajjat bihi naafilatan fa tabaarakallaahu daan nañ ci taxaw bu baax a baax moo tax Seydina Ousmane Ibnu Affan ku teg doon bakken la waaye jawaadan waxuma jawdin waxuma juudu yooyu dafay wuute ku jàng téere bi ñuy wax daaliya mu ngi wax jawdin la daa juudin wa tawdin saamiqin xilman wa awdin fii qutuubi samadadi jawdu mooy taw bu bëri jawaat dana firi naaru góor moo tax Seyyid El Hadji way ko ca wayam bele falilay issaaqat jawaadu suraaqat juudu nekk mooy firi tabe Seydina Ousmane ku tabe woon la ba mel ni sang bii toog joxe misaal moo tax may wax mais lii may wax ñi fi toog ñëpp xam nañ ni lu am la Seydina Ousmane ku tabe woon la te tabe bi dina ñëw ci waxtaan bi léegi ndax duñ ci yàgg duñ ci yàgg dañ ciy sof waaye duñ ci sos Seydina Ousmane ibnu Affan mu doon koo xamante ni dafa sell moom Ousmane ibnu Affan sell ci bakkanam sell ci léppam ba nabi mës naa toog ci biir néegam moom Seydina Muhammad saxaaba yi ku ñëw rek fëgg bunt bi bëgg dugg fekk nabi ji ci biir néeg bi Aboubacar a njëkk a fëgg waaye nabi ni mu toogee noonu la toogee defarul yërëm Seydina Omar dëgg fëgg nabi ne xoolal leen ma kanay fëgg muy Omar ibnu Xattaab nabi ne bàyyi leen ko mu dugg na mu toogee la toog defaru Seydina Alin ñëw kazalika nabi na mu toogee noonu la toogee defarul wu toogaayam waaye bi ñeenteelu nit ki fëggee mu ne Fatima xoolal ma kiy fëgg Fatima xool muy sayiduna Ousmane ibnu Affan nabi ne nee leen mu taxaw tuuti may ma Ousmane taxaw ci buntu bi nabi defaru ay yëram defaraat toogaayam ba na a jekk ndax fu mu toll rek na muy toogee day rafet waaye day bëgg a usmaan ni la mu am moom moo ko ko cëre moom sayiduna Muhammad waaye nabi mosul toog toogaay boo xamante ni jekkul waaw moo tax alxaaji Mansour ba muy way seex sayid alxaaji Malik dafa ni maa matta rijlayhi fi qawmin ida ijtamau xaqada fi halwatin min xawfi mawlaahu fekk nag moom ko donnee ci sayiduna Muhammad maamu Sharif Ibrahima Aydara Atijaani Maodo ko xoolal loo defal nit rek ñu delloo la njukkal ba Maodo way ci xilaasu zahab ne yonente bi wa alyanu nnaas xaalu lam yakun abadan bayna sahabati za maddin min alqadami wa alyanu nnaas nabi gi doon nooy ñëpp moom sayiduna Muhammad xaadu wax nañu ñoom borom siira yi lam yakun mësta nekk moom sayiduna muhammad za maddin muy aji tàllal ay tànkam bay na saxaabati diggante saxaaba yi bu toogoon ak ñoom day lem ay tànkam comme ni ko sang bi lebee nii toog ak ñun ñun ñi fi ne ñëpp ku ci nekk danga defaraat sa toogaay waaw ah. alxaaji Mansuur ne sama baay Maodo noonu la meloon moom moo ko way yonente bi mais moom noonu la meloon maa madda musta tàllal rijlayhi ay ñaari tànkam fii qawmin izaj tama'u bu mbooloo dajaloo ñu ne ko alaaji Mansour bu mbooloo dajaloo yomb na góor gi léeg-léeg mu wéet ci xalwa te kenn du fekke mun a hakaza ni mu koy defee ci biti fii xalwatin bu wéetee noonu la koy defee ndax min xawfi mawlaahu boo ragalee sa borom la ngay def ci biir ak la ngay def ci biti benn lay doon waaw ah, moo tax alaaji Mansour ne waskurhu yaskurka fardan aw la daa malayin laa tansa rabbaka fi sirrin wal ilaani li talxati rakaba wal ayaamu dayiqatun wa man tawaana yafutuhu lxayra yaa jaani mu ne waskurhu tuddal yàlla yaskurka yàlla may la ci biir tudd bi ngay tudd mais yàlla amul jotu toog di tudd nit fardan boo dee kenn wéet ci sa biir néeg tuddal yàlla aw la daa mala in wala ca mbooloo ma muy laazim ak wasifa la faa laa ji Mansuur day ca te tudd ko moo tax mu ne sama bàyyi Maodo itam bu toogoon ci mbooloo noonu lay toogee ki ñuy wax sëriñu seqati yu dafa toog ak ay taalibeem tàllal ñaari tànkam am haatif bu àgg ci doppam ne ko ahakaza tujaalisul muluk ndax nii la ñuy toogaaleeg buur bu doon buur di nga toog ak moom nii sëriñ bi ne ko ndax lan mu ne yàlla la tiim doo ko rus banque sa tànk yi man Mansuur ne kooku loolu dal na ko ba ñu yeddi ko waaye mësul dal Maodo ba ñu yeddi ko mu ne fu mu toog rek ay tànkam lay tegale toog ca moo tax mu ne sayidina Ousmane ibnu Affan fa ahabbahu qawmahu xam nga lu ko jural lii ay nitam bëgg ko tabe moo jural sang bi lii mu am itam ñeenti saxaaba yëpp ku ma ci waxtaan jikk yi may waxtaanee ci moom yëpp mën naa ko idaafal ci sang bi mu yore waale ñeent yëpp jikk boo waxtaanee ci ñeenti saxaaba yi laa wax de du par parloo de parce que yonente bi moo ne laysa minna man daa ila asabiya yonente bi nee na ki nga xamante ni par parloo rek moo tax muy woote jëme ci man kooku waxuma dara ci moom waaye péete nag dafay am péete nag bu mu la tax a wax lu nekkul ci nit ki nga koy waxal parce que bu ko deful ëllëg nga rus mais ñun kii ñuy waxal xam nañ li nekk ci moom xamuñu lépp nag mukk sa kilifa kenn du ko xam ba mu jeex xam nga Serigne Cheikh nee na li nga war a sonnee xam ko sa bopp da koy sonnee xam ko sa kii sa kilifa nga fàtte sa bopp moo lay àggale ci yàlla. comme yaa nangoo juddu ñaari yoon da ngay fexe ne ki nga judduwaat ci moom nga jox ko sa lépp mu mën laa yóbbu fa nga jëm man lam yuulad marratayn lam yalid fii ma malakuuti sama borom xam-xam yi dañu ne ku judduwul ñaari yoon doo àgg ci xadaratul ilaahi juddu ñaari yoon mooy lan abbi anzalani min alsamai ila al ardi wa sayxi arfaani min al ardi ila samaayi loolu la la koy may nag mooy nga joxe sa lépp moo tax sayiduna Ousmane ibnu Affan àggoon na foofu min xilaalil xaalisin mu ne sayiduna Ousmane ibnu Affan laa yaqsibu illa min xilaalin xaalisin du fàggu mukk ci biir alalam lu xaraam moom Ousmane ibnu Affan moo tax sayidul xaaji Malik joxe na ci misaal Maodo biñ ko nee ndax commence baaxul pour nga def ko si jaaji Malick ne ñimewuma ko maa ngi ko déggee woon ci sang bi mu koy nettali du sama wax mu ne ndax tisi bi may daggal ki may jaay weñ yiy dox ci diggante bi xaw ma ndax ci waa ji la bokk wala ci man la bokk boobu façon ragal yàlla moo moo raar moo tax biñ ko laajee lan mooy wilaaya moom Maodo mun a wilaaya du dala daw leen ci sóoratul Anfaal in awliyaa'uhu moo al muttaquun mu ne wilaaya mooy ragal yàlla ku la gën a ragal yàlla moo la gën a sët ci yàlla Seydi Hadj Malick ne nañ ko tënk foofu te ñu noppaliku moo tax Seydina Ousmane Ibnu Affan doon jëmm joo xamante ne ku selloon la fa ahabbahu qawmahu ay nitam bëgg ko ndax lan waxtaramu def leen di teral kuy teral ay nit ñu bëgg la kuy teddandil ay nit nag ñu bala bi xurmatin wasala xat fa nga jëm waaye bàyyi joxe orma moo lay dog ba doo mën a àgg fa nga nar a jëm orma la lépp di yéegee moo tax Seydina Ousmane Ibnu Affan doon na koo xamante ni za tijaratin waasiatin mu yaatal commerce bi mu doon def moom Seydina Ousmane Ibnu Affan ba tabe bi ma la doon wax sànq am na lu xewoon ci madinatu munawwara li xew moo di lan waa madinatu munawwara xëy nañ bis amuñu lu ñu war a dundee ñiy commerce yépp seeral li ñuy jaay Seydina Ousmane Ibnu Affan moo ci wut pexe keroog ba lépp a faju day am ci commerce yi surtout ñi ñi nekk Sénégal léeg-léeg dañ da waxaal ak ñoom mbir ba ñu yëg ni lii mën nañ la ko jaay jar na njëgam waaye soxor moo leen di dab ba duñ la ko jaay ba dee mujjee perte njëg lañ ca waroon a am loolu jaru ko marchandise bu yàgg ci bitik du du gaawal commerce mais boo amee lu ko jar te bénéfice mën a génn rek jaay ko mu dem bu ci jiital leneen mais bëgg cee jëlaat ñaar yu double ci liñ ko jëndee mooy tax lekk-lekk nit di xëy di jàmbat wërsëg te fekk am nga ko yaa ko bàyyi mu dem waaw moo tax Seydina Ousmane lu mu amoon rek jaayee ko la mu ko war a jaayee moom Seydina Ousmane ibnu Affan mu jël alfu baqir mu jël junniy gëléem moom sayiduna Ousmane ibnu Affan junniy gëléem taxmilu asnaafa taam fa ata tijaaru almadinatu almunawara liyastaruwa ma xamilathu alqaailatan wa arradu alayhi arbaqan taailahu sayiduna Ousmane ibnu Affan jël junniy gëléem dem ca dëkk bi ñuy wax saam mu wut fa ay marchandises yu jëm ci dund lu mu mën a doon rek jëm ci dund Seydina Ousmane Ibnu Affan yépp ko ci junniy gëléem yi gëléem bu ci nekk mu sëf la ba nga fees dell diis gànn mu jiit la ak ñoom dem Madinatu Munawwara dafa àgg rek ñuy commerce yépp wër Seydina Ousmane parce que ñoo doon seeral njaay bi Ousmane dem wuti ji pour bëgg xettali nit ñi ñu bëgg ko jëndaat ci Ousmane Ousmane ne du ma leen ko jaay ndax bu ma leen ko jaayee nit ñi gën a fànne keroog Ousmane Ibnu Affan jaayu ca dara xam nga nu mu def lépp na jël may ko fuqaraa yi nekk ci madinatu munawwara ñëpp mu ne fa azhidukum aw fa azhadukum boo ci wax baax na anni tasaddaxtu biha ala fuqaraa yi Ousmane ne li li ma indi yëpp képp kuy commerçant duma la ci may ñi ñàkk te nekk madinatu munawwara te bëgg luñ leen di dimbale ñooña laa bëgg a dimbale ci lii ma yore man Ousmane ibnu Affan mu jël lépp taxaw ci marché bi di ko maye ba mu jeex kooku tabe la yeddul sàq yun la loxo bu tabe la Seydina Ousmane def ko ci madinatu munawwara beneen bi ci topp wala ma arada nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an yuqaariba ar-ruum fi diiqin wa usrin sadidayni wa qad at'abahum alxarru fa jamaa rasulu minhum jaysan summiya jaysul usri Seydina Ousmane Ibnu Affan dafa am bi Seydina Mohamed wala ma araada ba mu bëggee annabiyu yonente bi ñu sol mbir yi mooy Seydina Mohamed an yu xaari ba pour mu xare ak ruum xare bi ñuy wax ruum fii xaswati ruum tu samma tabuuk mooy xare bi ñuy wax xare tabuuk Seydina Mohamed bëgg xare waaye saxaaba yi kenn ku ci nekk ngànnaay bi mu lay jox kenn amul njëg loo koy jëndee kenn amul ay fas kenn amul ay gëléem lu saxaaba yi di war sax dem xare amuñu ko ndox sax amuñu ko. keroog Ousmane Ibn Affan moo réglé xare booba xare Tabuuk ndax tabeem Ousmane Ibn Affan Tabuuk fu mu ne ñu ne baynal madinatu wa saam moo ngi diggante madinatu munawwara ak saam wa kaana al muslimuuna fii diiqin jullit ñi nekk ci xat-xat wa usrin ak jafeñ-jafeñ moo tax bindkat ba ne sadi day ni loolu nekk ñaar yu tar la mooy xat ba noppi nekk ci tar-tar ñaar yu tar yooyu jullit ñi nekk ci yéefari magi makkatan mukarrama keroog la ñu toog ci pénc mi naan ndaw ñiy ànd ak sayiduna Muhammad bàyyi leen naaj bi ngeen di daw feebar rek la leen di jural ngeen di ànd ak waa ji mu leen di sonal rek ngeen di xeex rek yàlla yónni jibrilu ne ko dawal gaaw gaa ne nañu laa tanfiru fil xarri nee leen xul naaru jaaxal na ma asabtu xarra law kaanu yafqaquun mu ne dawal nga ne leen ñoo ngi naan xale yi bu leen daw ci naaj bi ndax naaj bi dafa tàng ngeen di jàppale yonente bi dawal nga ni leen safara gën a tàng naaj boobu tiim leen ku mën a xare na ànd ak nabil Moustapha ndax ku ci dee sahid ngay sahid ngay doon mu ne nee leen ñu dem keroog la Aboubacar toog ci wetu sayiduna Mohammed nabi tiim Aboubacar gaa yu ñëw laaj ko yasalunaka ani ruuxi yonent bi ne xuli ruuxu am amri rabbi booba yonent bi xam na ko mais du ci dugg xam na ko parce que Aboubacar moo ko mujjee tontu su ila Aboubacar sabih anil arwahi xiina taxruju min ajsaadi an tazhab bi ayi makaani takunu ñu ne Aboubacar ruux bu génn fu mu jëm Aboubacar ne juróom-ñaari ruux bu ñu génnee ci jëm ma xam naa fi ñu jëm man Aboubacar parce que yonent bi du njëkk a tontu nit bu fu duggoon tey laaj sang bi masala te na mu ko laajee ñun ñëpp xam nañ ne teguwul ci yoon. moom balaa moo wax ñun war nañoo wax looloo tax Aboubacar ak Sayyiduna Muhammad mais Aboubacar mujjee naa tontu yëpp ni amma wa amma arwaaxul anbiyaau wal awliyaau euh, fa maqarraha jannatul firdawsi wa amma arwaaxul awliyaau fa maqarraha jannatul addinin mu lim ko ba muy juróom-ñaar wa amma arwaaxul muminina musnibiina ñooñu du ñu dem fenn muallaqatun fil hawaa'i laa fil ardi wala fis samaa'i illa yawmil qiyaamati Aboubacar loolu la wax ruuxu jullit bu mooy yàlla ba fees ay bàkkaar àggul ci yàlla aggul ci suuf yàlla nga ko côté diggante asamaan ak suuf muallaqatun fi samaa'i Aboubacar ko wax laa fil ardi wala fi samaa'i illa yawmil qiyaama ñu ne ko ruuxu jullit yu ndaw yi faatu nekk xale bu ndaw a ndaw faatu génn adduna te doomu jullit la pire doon ku sell mokkaloon alquran wala mokkalul alquran waaye doomu jullit la ruuxam bu génnee fu mu jëm. aboubacar ne wa amma arwahul awlaadul muminina fa takunu fi jabalil miski ma ajsadihim illa yawm alqiyamati mu ne dafa am montagne bu nekk ci kaw jabalul miski la ko yàlla di tuddee mu ne fa lay teg seen ruux ya di ko wis parfo ba yowmal qiyam ñëw ñuy ñaanal seen waajur yi ñu bàyyi fii ba yowmal qiyam mu ne ruux yooyu duñu sonn mu tudd ko ba muy juróom-ñaari ruux taxu ñoo jóg aboubacar saddiq dem ca mais Sayyiduna Muhammad laajoon nañ ko ko mu ne déedéet mbiru yàlla la mbiru yàlla la ba mu ko delloo ci yàlla illallah wa raasixuuna fil ilmi mën nañ koo firi waaw wa raasixuuna fil ilmi moo tax keroog moo indi bi ñu waxtaanee ci Aboubacar Saddiq ñu dem tararari ba àgg ci kanam sang bi indi alif lam miim teg ko ñett yi gëlëm gi yées ar raasixuuna fil ilmi yooyu du xam-xam bu tuuti. Seydina Ousmane Ibn Affan keroog bi mu génnee xare boobu moom Ousmane Ibn Affan mu jël lépp dépassé ko yonent bi taxaw foofu la yonent bi duggee ci néeg néeg di ñaanal Ousmane di ñaanal Ousmane ba bët set keneen bokku ca ñaan boo xamante ne Ousmane keneen kese la ba set keneen bokku ca yonent bi di ko ñaanal Ousmane moo tax képp kuy sonn ci gàmmu gii na nga yëg boo ko yëgee ak boo ko yëgul sang bi la Ousmane la yonent bi defaloon Ousmane moom la koy defal moom lay ñaanal te yëguloo ko moo tax lu waay sonnee ci mbiru sëriñam sëriñ si xam nañu li saxaaba yi daan def xam nañu li yonent bi daan def jàng nañu yooyu yëpp seen lépp fa lañ ko copier moo tax loo jàng foofa rek yëgal ni kilifa gi xam yàlla moom la koy defal fii loolu njaboot moo ko war a xamal boppam waaw moo tax Seydina Ousmane Ibn Affan bi yéefar yooyu waxee xam nga mag ñu kàccoor yi rek toog ci kër gi màgget bay bëgg a dee bu leen daw ci naaj bi mooy màgget yooyu nga xam ni seen baat yi dafay loxaale bu ñuy wax ñoo gën a iñaan koy iñaan moo tax dañuy yooyu yooyu ba kenn du xam lu ñu nuru waaw <laughs> ci kër gi rek lañuy toog di teree booy yi dem ci naaj bi te booy yi mën a jàppale yonente bi pour léppam sotti waaw moo tax ñu tuddee ko jaysul usri mbooloo mi amoon jafeñ-jafeñ mooy ñi doon dem guerre ji am jafe-jafe ci guerre gi ñu naroon a dem sayidina Ousmane lijjanti loola wa bi alfi baqirin wa xamsiina farasan xoolal juróom fukki fas am ñu ne juróomi téeméeri fas ak junniy gëléem sayidina Ousmane keroog moom la préparé indi ci wetu yonante bi ne ko saxaaba bu ci nekk na war dem guerre ji ndax l'islam taxaw ñun lay taxawal keroog laata ñoo départ la yàlla ne jibril waxal ak nabi yaa ayyuha nabiyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiin waxlus alayhim fa mawaahum jahannama wa bi masiir waaw mu ne ko dëgëral ci ñoom yéefar yi dëgëral ci ñoom boo àggee noo mën a xeex ak ñoom xeexal ak ñoom xale Tabuuk bi Sayyidina Ali day xeex ba ci yàgg ñu koy wanante ci biir gaañ yi kooku Ali la de mooy nu ko Ali la moo ngi noonu Ali saase na lu mat juróomi yoon jënd yi muy sol. ba muy dem daa xam boppam ba yóbbaale tëdd yu bëri ndax buy rey nit ba ci yàgg rek ñu koy wanante àllin rek la ñuy ragal ci biir mbooloo mi dem ba ci yàgg yéefar yi làkkatu futti seen tubay yi comme àllin karamallahu wajha ku àllin jub ci moom rek nga yëkkati sa garam bu ëñ ko awra yi mu dellu pexe boobu la yéefar yi mas mujjee def ndax ragal Seydina àllin karamallahu wajha ñoo bëri ay pexe ñu ne kii comme mooy rey rek te karamallahu wajha nañ ci wut ay pexe summi leen tubé ñoo ñaaw xalaat mu ne ko àllin jub ci moom rek nga ëñ ko ko mu delluwaat di àllin di gis ca àggee da ngeen di ree ba sonn àllin dafa xorom bu woon waaw jaasi bi mu yoree la gaa yi ragal ñuy wut ay pexe rek waaw walam yazal fi xitaalil kaafirina xatta yakuna sahidan ca ca mii mi Seydi Hadji Malick wax ko waaw ba ñoom ñuy seedantu ci seen biir Aline moo ku mu jege rey la moytu leen ko moo ngoog Aline làkkatuwaat changé ay tëni teewul buy génn gars yi ko xàmmee ndax reykat des koy xàmme Aline buy génn rek gars yi naan daa changé waxtu leen ko ku mu jub rek nga tee waaw. xare boobu doon xare boo xamante ne jaysul usri boobu Seydina euh, Ousmane Ibnu Affan moo leen mujjee def jaysul yusri mu yombalal seen lépp. ba ñoom ñëpp ba ñu àggee ca xare ba ku ci nekk ba ngay xeex sa xel dafa daloon ca xeex ba nga xam fa nga doon teg sa tànk xam la nga doon def Seydi El Hadji Malick wax ci bayit yi ca wax ca xare booba Seydi Hadji Malick ne usallisu bil maqtuuli zulman fa yaa lahu laqad jamaa alqurana wa huwa adulu wa jahaza jaysul usri Maodo bàyyiwul dara ci yonente bi waaw ma nga ca laamu yàmba laxat xaaja qalbi lil xandine ajulu téere Saïd Gay boobee ma nga ca téere booba waaw Maodo ne wa jahaza jaysul bihi kaana yastaxyi l rasulu mulaqabun zi nuurayni iz kaana xaaizan bi bintay rasulillahi wa huwa masiru gis nga yi ma doon waxtaan sànq yëpp la Maodo tënk ci ñetti bayit mooy li sang bi daan wax ni Maodo gars yi dañuy woy ba ci yàgg mu tënk ñi nar a dem àjjana Zubayru nil xulafa xoolal Zubayru nil xulafa juróom daanu na mu tënk lépp mu ne usallisu dinaa ñetteeloo ci loolee ngeen di waxtaan bil maqtuuli ci ki nga xamante ne dañ ko rey zulman ci tooñaange muy sayiduna Usmaan fa yàlla bu iskay fa yaa lahu kawtéef moom sayiduna Ousmane laqad jamaa dajale na alquranu quran wa huwa abdulu kumaanu la Seydi Hadji Malick nee na Ousmane moomu kumaanu la mu ne wa jahaza dëgmal nañu nag jaysul usri mbooloo bi nga xamante ne amoon nañu jafe-jafe waaye jahazahu dana ko fay de moom Ousmane waaw Euh, euh, asaxeer boobu nekk ci kanam day delluwaat ci sayiduna Ousmane damirul mustatirun taqdiruhu anta yaa Ousmane ibnu Affan lay delluwaat ci gars yi di di nab na bi ci grammaire waaw moo tax mu ne rabbuna suñu borom bi i ci moom kaana nekk na nag yastaxyi muy am kersa al aminu ku ñu wóolu ko muy sayiduna Muhammad rasulu ndaw lu tedd joojee amoon na kersa ci sayiduna Ousmane Maodo loolu la wax Maodo nee na mu xallabu zin nuurayni daan nañ ko woowee boroom ñaari leer yi iskaana jamono ji nga xamante ni nekk na xaaisan muy aji làkk bi bintay rasulillahi ci naari doomi sayidul wujud wa huwa moom masiru ko bëri yiw la waaw fadilu la xamoon waaye Seydi Hadji Malick bi am ñetti tomb yiw la ko firi fii moo tax Maodo ku yéema la ay mbind bi kenn xamut lan la Seydina Ousmane Ibnu Affan defoon na loolu yahuud yi am nañu benn teen ca madinatu munawwara yabiul maaha dañu daan jaay ndox ma lil muslimina ñeel jullit ñi julit bu ñëw root si da ngay jënd yahuud yi ñoo moom bi waaye nee nañu teen ba gis nga li may wax sànq maa ngi defaru sama tànk yi zéro newatan laaw tànk yëpp yàqu